Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV cant ak ngërëm ñeel na leen si teewlu bi ngeen bi di lu seen bi comme niñ koy faral di defee ay jàngat yu am solo yi nga xam ne nag dañ leen koy faral di dégtal jamono bi nag li coow li mooy wàllum dàq élection présidentielle 2024 est-ce que dina mën a nekk am déet euh, mu nekk lu doy waar euh, ki nga xam ne nag moo di njaga si la expert bi nag Walum electoral eh, mu ràññi ñu ragne ko ci lool mu am ci xam-xam bu jéggi dayo mom nak sax da ney wax 1993 eh, am na mbir mo xewon teewul election dafa amone te kenn daq ko lol nak bu ñu ko kon ba tay jii ni amul dara lu mën xew dal ba tax ñu daq election presidentielle 2024 yi nga xamne dañu dinañ. waaw kay legi nak mbir ma ngi bëgg leer Ndiaga sila expert electoral bin xam Madame démission au euh, président au conseil constitutionnel et assistant madame vice président même ben démissionné en 1993 y a dara ci processus électoral bi jusqu'à juste Kéba mbay mi nga xamné moy baye Abdou ancien premier ministre dafa démissionné won ki toppanti mom démissionné maître Babacar sey mom mom mo ñëwoon ngir joxe résultat yi. ku nekk dégg nga maître Babacar Seye xanaa 93 ban ko faatee sax taxul élection yi processus bi dakk maanaam da leen bëgg a wax ni amul lenn lenn lenn lu mën a dàq ay élection si la expert électoral kon gars yi nan dem jëli carte électeur yi nan dem jëli carte yi te ku nekk xam fi ngay voté jee teel a jël say matuwaay dem voté ji balaa nguur gi di nekk fi naan ay day tëj ndakaaru ngir raison de sécurité yooyu na ku nekk xam-xam yi voté jeex. ngir jëm yàlla man naka laa mën a dégg nag wax dëgg yàlla patriote bu gëm patriotisme ba pare nekk fi di bëgg a dugal ci bopp xelu sénégalais yi ak patriote yi dañuy dàq élection bu ñu defoon ndànk dañ koy dàq te wax dëgg yàlla nag war nañoo may dépassé niveau boobu nag wax dëgg suñu borom man damaa jàppoon ne diversion yii ñuy dal bu dégg ba man pour man nit ñi nañ cee yeewu quoi te ñu bàyyi yooyu ngi caay la c'est man parti parti Pastef dafa ma fi ñu toll nii da man ñi ci nekk dafa am ñu ma xaw a yëm quoi ci yenn débat mais xanaa ñun euh, parti bi amul ay kilifa amul ay porteurs de voix yoo xam ne ñoom la ñuy déglu di leen xaar ci communication ñooñu kenn déggu leen ñoo kenn leen léegi ñun moom ñoo bëgg a nekk fii di veiller ci ay dañuy dàq élection ba ko dugal ci boobu patriote yi mais war nañoo xoolaat suñu bopp ah élection kenn amul droit dàq ko. kuñ ko def sa bopp nag ba mu jaaxale dama nga tëdd nelaw ba élection yi jàll nga ñëwaat wax dëgg yàlla te dañ dimbale doomu aadama yi ci wàllum dañuy dàq élection nanga sax élection sénégal c'est trop tard que ñu dàq ko nañu bàyyi débat boobu ngir yàlla ah déedéet waaye keroog le vin boobu noonu mi ngi tombo nag match gam match match gambi bi yaakaar naa maa ngi koy fàttaliku mais luñ doon wax di dugal ci bopp sénégal yi nan ah bu ñu moytu liste bi lu génn bu nee ba ba minuit élection yi moom jeex na dañ koy dàq def ko ci bopp patriote ba nit ñi di ko def ay débat xam nga dañu bàyyi yooyu dafa am sañ-sañ gisee Macky ak waa këram dafa am sañ-sañ fu seen sañ-sañ yem lu question que ne ñoo jiite benn weer mooy des lu leen neex mooy am déedéet demul noonu de il faut ñu ba xel loolu du question que ne lu ñu bëgg par la force dañ koy def déedéet instant yi amatuñu benn pouvoir te bu leen ngeen bara bàyyi xel ni ko xaari waxe léegi <coughs> waaw adduna bi yëpp ngi ñu teg bët ñu war a yebal seen ndaw yëpp pare nañ pour yebal seen ndaw pour ñëw Sénégal pour saytu élection yi moo xam CEDEAO la moo xam Union européenne la et cetera ak yeneen euh, yeneen koor yi ci des ak yeneen yi ci des il faut ñu dugal ci xelu askan wi ñu dem jëli carte d'identité il faut ñu dugal ci xelu askan wi bu vote jotee naka la ñu mën a sensibiliser surtout mag ñi ak ñi nga xam des nañoo yeewu ci wàllum électoral naka la ñu mën a sensibiliser pour ñu mën a dem vote ci ak naka la ñuy voté ak lan mooy bulletin bi. bulletin Bassirou Diomaye Faye bu xam ne waxee génn nan koy mën a wane nit ñi pour ñu xàmme ko bu ñu ko jaawalee man loolu moo war a nekk combat fi ñu toll nii mais pas ay bu ñu vigilant wala bu ñu moytuwul élection dañ koy dàq yàqu na nag dama man ma quoi. leen waaw bulletin sëñ Bassirou baa ngoog de kon ñu bàyyi ko xel rek te dem jëli carte électeur yi te tañ tañ fàtte débat wu ay dañuy dàq élection loolu moom vraiment nañ ko fàtte. loolu moom wër la bokk suñuy affaire sax daal nañ dem jëli suñuy carte électeur Macky Sall ñun la yab de waaye yebul àddina bi barki demoo Ndiaye Human Rights Watch rapport boobu mu def du ay caaxaan loolu dafa am lien ak dossier wu CPI te keroog maa ngi doon liir beneen kii boo xamante ni bii maanaam union internationale bi yebal nañ seeni ndaw Sénégal ngir ñu saytu élection yi. boo déggee ñuy wax ay dàq élection dañoo bëgg a ta dañoo bëgg a def ci boppu gaay rek nii ay élection du am dina am indi jeexi jaaxa ba nit ñi duñ dem jëli seen carte électeur yi na gars yi dem jëli carte électeur yi ndax dégg naa carte yaa ngi fees dell ci mairie yi nañ dem jëli carte yi ngir yàlla wax dàq élection moom vraiment du débat sax loolu moom du débat waaw élec élection yi bu ko doon dàq keroog la vingt kon conseil constitutionnel du du du du kii liste bi. ndax dañ ne liste bi balaa ñu koy wane faaw 35 jours avant bisu vote bi te keroog la 20 dernier minute la ko wane. lillaahi wa rasuli dem leen jëli seen carte yi dem leen jëli carte électeur yi maanaam ay élection kenn du ko gañe dañ koy perte élection yi di ñëw ñun doog ñoo ko mën a perte mu indil ñu jafe-jafe waaw nan dem jëli carte yi te fàtte ay dàq élection loolu 2012 xam nga nag 2012 ñu baree bari si ñun dañoo fekku leen ci wàllum politique waaye 2012 ancien président wu Nigéria bu ñuy tuddee Obasanjo Obasanjo ñu bari xam nañ ko peut-être ñu dégg tur wi ci ay turu turu yi ñaare ay senro ñaw lañ ko xamee naan ñawal ma Obasanjo Obasanjo moom moo nekkoon ancien président wu Nigéria veillu élection yi comme nii 2012 dafa ñëw Sénégal di di waxtaan naan pour ñu dàq élection yi. Macky Sall li muy def poste daal ni kenn du ko fi dàq dañuy respecté calendrier républicain bi Sidi Lamine Niass dem ca euh, Walf def live ku tàppe ci net bi di ko gis ñii la demee woon rek nan dem jëli suñ carte yi te bàyyi waxi dàq waa PDS de moom ci diil kese la nekk comme noonu nga ko waxee rek waaw ñoom moom lu ne ñeme nañ ko waaye <laughs> du leen tax a de yàlla xam na loolu waa PDS dañoo dañoo dañu nuñ koy waxee seen bopp rek leen ñor loolu français yi di wax naan égoïste anglais naan ko selfish arabe yi naan ko anania loolu moo leen dal maanaam nit koo xam ne njariñul boppam rek ji koy muus PDS am nañ lu ëpp maanaam seen député yéen am est-ce que du 27 député nañu am ñaari candidat mais léegi dañ doon carte par par perte léegi xam na ni ñun dañuy dem élection te bu ñu demee élection dañuy gagné moo tax ñuy wax yi ñuy wax ni yëpp gisoo tudd ñu fenn Macky Sall Amadou Ba lañ koy lañ koy sippi PDS mooy koo xam ni bu la bëggee songu bëre daf lay attaqué daf lay tuumaal fi mu ne maanaam doo dégg doo du yàgg ba nga dégg ñu tudd Macky Sall noonu non non Ba la ñuy tudd gis nga Mimi ture li mu doon def yëpp Macky ko doon def mais moom la ñuy moom la ñuy tudd PDS ci li nekk maanaam mbooleem lu Macky Sall indi assemblée PDS daf koy voté lu opposition bi indi mu boycott ko kon kooku si boppam la nekk léegi nag ñoom mënuñoo dem élection bëgg ñun tamit duñ dem loolu moom du mën a nekk. loolu ñu naan bëggoo sa jëkkër ni sa wujju du ko nopp loolu c'est impossible quand même léegi ñoom nan nañ rek wala ñu xool fu ñuy wékku ji ñoom yàgg nañ koo def PDS moom protocole de ko Conakry moom ku ne dégg na ko deux mille dix neuf Abdoulaye Wade ba mu ñëwee naan day lakk carte yi bu leen dem ci fichier bi ginnaaw ba mu jógee fee la discours am soppeeku moom daal moom daal moom Sénégal ay yeewu rek tam jëli carte électeurs yi rek kese.